wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu jotee ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa xalifa de murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jaar ci sëriñ Abo Mohamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacke yàlla na ko fi son borom yàggal te doole ak wéram ñëw nag ci kër Alhaji Ibrahima Dia jaar ci kër maam Omar Dia mi nga xam ne tey jii mooy jëwriñu kër Alhaji Ibrahima Dia wàcc nag ci sëriñ Abdul Xaadir ja ak ay rakam di njabootug Alhaji Sëriñ Dia bis bi nga xam ne baaxoo nañ di ko amal at mu jot di ko amale ca ndakaaru ca pikin ci kër alxaaji njàpp saw taalibeem bu mag ba bis boobu nag moo dellusiwaat war a doon fukki fan ci weeru novembre dëppoo ak fukki fan ak juróom ci weeru rakki gàmmu bis boobu nag reen jii dañu ko dara dara jaale kenn ci taalibey alhaaji Ibrahima ja kenn ci taalibey alhaaji Serigne Dia di Serigne Mouhamadou Lamine Mbuub ñu gënoon koo xam ci Serigne Modou Mbuub nekkoon Senelec ca Siganzor moo tax ñu toog fii tey ci kër alxaaji Abdou Khadir ja mi nga xam ne mooy xalifab alxaaji sëriñ Dia fas yéene woote bis boobu nag mu war a doon le 10 novembre incha allahu rabbi bis boobu nag xam ngeen ne at mu jot danañ tànn kenn ci taalibe yi tudde ko ko moo tax ren jii ñu du duppee ko Serigne Mouhamadou Lamine Boub ci ndigalul Serigne sàmba saw mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Serigne Jàpp saw kon dañoo bàyyee kàddu gi. sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi mu ubbi jataay bi su noppee sëriñ Asmor Dia dana yëkkati ay kàddu mu jëm ci wàllu njàngum alxuraan mi su noppee nag famille alxaaji Lamine Mbuub danañ yëkkati seen kàddu su noppee njabootug alxaaji njàpp saw danañ yëkkati seen kàddu waaye ñooy xam ne ne bis boobu bu ñu demee bu julli saan nag daanañ fa amal cérémonie bu mag boo xamante ne bii waxtaan wa koy jiitu sëriñ Mamor Mbàkke xam sa diine moo ko daan def incha allahu rabbi kon ñu bàyyee kàddu gi sëriñ Abdou Khadir. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bokk yëpp di ne bis bi nga xam ne dañ daan ñu koy defal alaaji sëriñ dafa dellusiwaat muy fukki fan ak juróom ci rakki gàmmu gi nekkoon vingt vingt quatre octobre 1991 doonoon jeudi muy alxames ren it mu delluwaat cosaan la alxames la ren kon delluwaat na ci saa cosaan la bis boobu nag moo agsiwaat moom lañ leen di fàttali leen ko yëgal di ci woo umma islamiya bépp rawatina mbooleem ko aju ci yoonu murid ñu la ci woo di ci woo mbokk yëpp rawatina nag waa Daaru Salaam tàmbale ko ci njabootuk sëriñ Moodu Maamun gépp ak njabootuk maam Seex gépp ñu leen ci woo ci bis bi ndax bisu fàttaliku la ndax bisu ci laa laaj sëriñ wuy ji woon boromam muy alxames doonoon 24 octobre 1991 ci rakk gàmmu moo del soit bi dëppoog le 10 novembre comme ni ko sëriñ Fallou waxee ñu ngi ciy waroon mbooleem ñoo bokkal maamam sëti maamam Dia yëpp góor ak jigéen ñu leen ci woo bàyyiwuñ kenn di ci woo taaliba yépp dem fu taaliba mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew mi ñu ngi la ci woo waaw ndax bis la boo xam ne nii benn bis gënu ko uh, féete kaw ci nun ñu di ko defee nag fee ca uh, Pikine kër Baye Alaaji Sow ñu jiital ci kilifteefu sëñ Samba Sow ci jëwriñu sëñ Ousmane Sow mii kon ñu ngi ci woo ñëpp daal bàyyiwuñ kenn wëlëri ak xarit yeeg am yi jàmm yeeg yëpp ak bokk yi di s ku sëtu ci Maam Mor Anta rek mbokk ci bokk yi nga ñu ngi la ciy woo <coughs> na taalibe kër gi moom taalibe El Hadj Ibrahima Dieye nag moom bàyyiwuñ kenn bu ñu sañoon nu ñëpp ñëw nu ñëpp ñëw képp ku yaakaar El Hadj Ibrahima te fu waaye koo xam ne la wooyee nga ne jaar rek yaakaar El ñëpp waaw bëgg ñëpp teew ci daal ndax bis la boo xam ne ni bisu njariñ kese la ku am ngànt itam nag bu subaa loo mën ci ay ñaan ak istixfaar ak jéggul ak ak ak ak ñaan ñaan ko dool dool El Hadj Sëñ ak njaaw ak ak bokkam ya ñëpp leer ñu ndax bis la boo xam ne nii boo boobaa dañ ko yéene El Hadj Ibrahima Dia ak mboolem ku mu jabootoon ak mboolem ko xam ne taaliba woon te te wuy te te nekk barsax ñoom lañ ci ñaanal di ko fàttaliku kon bis baa noonu ñëpp ñëw. asalaamaaleykum wa ñu yëkkati suñ kàddu rek ci ndigal sëñ bis si Abdou Khadir di xam ne bis bi nga xam ne mooy bisab alhaaji sëriñ Dia te bàyyi njàpp saw fagu woon ko defal ko boppam ay at sàkku ci ak njabootam ne mooy bisam nañ ko ba kamtul bisam bis bi bisam bis boobu la Euh, bi fi nekkee Alaaji Omar Dia yal ko yàlla doolu yërmande ak njëgal ak leer moo daa jiite njàngam alxuraan mi te parcelle di ñëw di toog ànd koog imaam Sëñ Modou Guèye ak mbooleem nag ah, ñi nga xam ne eh, boroomi daara lañ ci nekk Jurbel ak ñu fasanti ko ci senegal Sëñ Ousmane at mu jot day ñëwal boppam ànd ak délégation ñëw ci kilifa yi waaye ñëw ci daara ji te mu tàmbalee ci daara yi Alaa Ibrahima ji nga xam ne moo nekk fii ci Daaru Salaam suñ Basiru Saaxo ak suñ Jaxuna jiitu ko ñëw ci man mi ak daara suñ Balla jàll daa nekk daara suñ Mustapha ji daara suñ Maam Mor fenn fu nekk dana fa demal boppam fàttali la ko yëkkati àllam joxe fa ñuy soññ suñ bopp nag di soññ mbooleem daaray alxuraan yi di soññ suñ maam Omar ci xaadim xaal mi nga itam daara yi mu xamante ne yëpp ak seen daara yi at mu jot dañ koy wax ñu def lim bu takku ñu ñaan yàlla ñu tàmbali njàng moomu ba ca bis ba te sellal ko ñu fasaale ci ci alxuraan ji Cheikh Mamadou Mountakha yàgg fi loolu tëyër ñu fasaale ci. ah sëñ Abo Mbacke moom sëñ Modou Mamoune ak njaboot sëñ Modou Mamoune gépp ak si Anta gi yàgg fi loolu te wér ci sëñ maam Omar Dia xalif Alaaji Ibrahima Dia ak sëñ Abdou Xaadir mii ak njaboot Alaaji sëñ gépp ak ci nag ña nga xam ne nekk barsax te moom alxuraan ji mooy Alaaji sëriñ ak way juróom ya ak taalibeem ya Alaaji Njàpp ak Modou Lamine Buub ak mboolem ñu nekk barsax alxuraan ji mën na kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax ah ñu ngi taxawlu foofu rek euh, di sant bu baax a baax rek euh, di ñaan yàlla may nu ñu àgg ca bis ba ci bakk alquran ci lépp luñ ci fas rek yàlla defal ni lu kawe njor. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonante bi ñoo ngi ñaan sëñ Muntaxa suñ boroom yàggal ko fi may ko wër ñoo ngi sant bu baax sëñ Abdou Khadre ak sëñ Asmor. ñi toog fii di leen ziyaare di sant bu baax sëñ Ousmane Sow mook ay magam ak ay rakkam ak njabootu sëñ njàpp Sow gépp ci bis bi nga xam ne taxawal nañ ko seen waajur sosoon ko boobu ba léegi ñoom ñu wéyal ko di ko def at mu jot buy gën a jëm kanam te boobook léegi mu doon at yu bari euh, soññe la boo xam ne bii ñu suñu mel ni ñun at mu jot bu bis bi yegsee dinañ fàttaliku suñu waajur yi fi ñu tegoon seen tànk ñu gën a xoolaat suñu laxasaay ndax ñoom kon ñoom euh, kenn amul seen fay euh, ñoo ngi bis bi nag ren ñu ngi koy def le 10 novembre 2022 ñu ci woo mbokki taalibe yépp yi nekk Kaolack Ziguinchor Casamance waa njama yi nga xam ne yi suñu kóllëre waajur lañu woon ñoom alaaji Sidiya Dramé ñu yor fa ay daara yu bari ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññ di leen wax ne bëggoon nañu daara yi nekk njama euh, umul xuraa ak euh, parcelle Assainies fii Dakar ñu waajal bis bi ci njàngum alxuraan bi lépp luñ si mën a jàng ci ay kaamil rek ñu barkeloo ko ci bis bi. woow di woo it waa mbokki taalibe yi ak njaboot gi nekk uh, Ndar uh, ñoom Baye Mor Samb njaboot gi nekk uh, Ndar Baye Yugo Samb Yugo Mbuub ak Soose Mbuub ak seen njaboot yëpp ak bépp taalibe bu nekk ci Sénégal ak bitim réew suñu doom yi suñu doom yi nekk bitim réew sax ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax ñu waajal bis bi suñu suñu waajur bi nekk Kaolack ñu ngi koy woo ci bis bi Alaaji Malick Mbuub mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare ci ndigalu sëriñ Abdou Khadir Dia mi xalifa Alaaji Serigne Dia ci bis bi nga xam ne moom la ñuy waaj di fukki fan ak juróom ci rekki gàmmu tombeeg le 10 novembre alxamis muy bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku Alaaji sëriñ sunu kilifa gi sunu yaakaar yi ak Alxaaji Ibrahima Dia ak taalibeem ba Alxaaji Njàpp Saw mu tombeeg fukki fan ak juróom ci rekki gàmmu ñu ci woo bépp mu jullit rek ñu ngi la ciy woo di ñaan yàlla na solom dafa ñu la koy sur njort indi ci ñëpp ci jàmm ak salaam delloo ñëpp ci jàmm ak salaam képp koo xam ne daal jullit nga ak foo mën a nekk rek ñu ngi lay woo ci bis bi bis bi nag li tax ñu tuddee ko sunu waaju yi ñoom dañoo ànd àndoon ak alhaaji Sëriñ Dia loo xam ne kawe na njortu liggéey fi liggéey bu kawe te gis nañ ne biñ ko commencé tudde ñu àndoon ak alhaaji Sëriñ Dia ba tey gis nañu ne njaboot gi day gën a yokku nun ko bëggee mu gën a kawe njortu mbooloo mi nga xamee ne at mu ne kun ko tëre rek bu diisiwaatee rek da nga ànd ak sa waa kër ñëwaat kon dina yokk na yokk goo xam ne daal kawe na njort di nga xam ne li am solo ba am solo mooy comme suñuy waajur ñoo fi nekkoon jóge fi sunuy maam nekk fi ñu nekk fi kon nañ góorgóorlu ci kër gi te xam ne kër gi rek lañu am te xam ne bis benn bu ne ku ne am na bis boppam. waaye bisu alaaji sëriñ bi ñu njabootu alaaji sëriñ mooy suñu bis képp koo xam ne yaa ngi sukkandiku ci alaaji ibrahim ak foo mën a mbokk rek ni ko suñu Abdou Xaadir waxee ñu ngi leen di woo ñëpp di ziar ñëpp suñu mbokki pël Fuuta yi xam ne at mën nañu ñëw ci jàng ay kaamil ñu ngi leen ci woo ñëpp suñu mbokk law yi bàyyiwun kenn ñëpp ñu ngi leen ci woo bis bii nag ci mbokk yi lawbe sax am ñu ciy fàttalikuwaale di sama benn maam bu ñu wax aji mbaaco saw dëkk fii ci tuubaa nekkoon bàjjan tant ci bàyyi alaaj njàpp ñu ngi koy fàttaliku moom ak njabootam yëpp di leen ci ñaanal ak bépp mboolum jullit kon ñu ngi nuyu ñëpp tuur xalifa sàmba saw ak sunu mag aji faatu saw ñu gën koo xam ci yaa faat nekk Amérique ñu koy ñaanal sunu borom guddal fanam te àggale yéenim ci barkeb alaaji sëriñ ja wasalaamaaleykum wa rahmatullah jëf mbokki jullit yi jërëjëf mbokki taalibe yi bis baa ngi noonu di bisub alaaji Serigne Dia di amee ca Dakar ca Pikine ci kër alaaji Njàpp Saw war a doon le 10 novembre dëppoo ak fukki fan ak juróom ci weeru rakk ki gàmmu bis bi ñu dara jaale ko alhaaji Mouhamadou Lamine Mboup mi nga xam ne dégg ngeen ay woote waa këram kon sëriñ bi nee mi ngi soññ mbooleem fu jànkatub alxuraan mën a ne wala jànkatub xasida di la xamal ne bis bi lépp bëccëg lay doon ndax dañ cey jublu lépp sell gan ñi it mën a delluwaat fan jóge woon cérémonie religieuse bi nga ne moo fay am ginnaaw bu ñu julee tisbaar ba noppi lay doon waxtaan wa ka koy jiite moo di sëriñ Mor Mbàkke xam si diine xam naa nag bis bi dañoo woo lawbe yi dañoo woo seeni bokk bàyyi naar yi waaye maa ngi koy yëgal naar yëpp ñu xam ne màggalug naar la waaye màggalug lawbe la ñun ñëpp daje ji Pikine wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu